xool nga jataay bi Lamine lii moom yaakaar naa ku ko gis si làmb du la war a jaaxal xëy na ñun ñu ay xale waaye ñi xam kii Cheikh Saad bu mooy sëriñam kii sëñ Babacar Si mooy sëriñam mais ñuy ay mag dëkk Pikine yar nekkoon ay mbër bëre ba bàyyi bëre yar ay mbër ah Boy Niang yaakaar naa ku ne xam na ko mu bokk ci mbër yi gën a yaru ci làmb ji Père Dégol mi mooy papam kii mooy suñu papa Pape Diop Boston yaakaar naa ne moom itam Mansour Diop ay ñoom Ama Sène ay Zil Balde ñooñu ñëpp am na lu mu def ci ñoom moog père Dégol mi toog dama xamul nag si kan lay njëkk yéen ñaar papa maa ngi lay ziar. jëkkeel ci Dégol. non saret du jiitu fas. Ah. saret du jiitu fas. parce ah. kon delloo nee na saret du jiitu fas ah. euh, su. mën naa ne ndax moom comme maa ko yar te euh, xale bu loxoom setee mën a bokk ak mag kon mën naa ko jox rek mu waxtaan ndax li ma ci sànni man bariwul mhm. waaw. rafet na ba tey mën naa ne ah dégg nga li wax de suñu papa De Gaulle. waaw comme ndigal rek laay doxe comme moom mooy suñu xalifu te ku tudd Pikine moo tax moo ko Falaye Baldé kon donc bu ñuy taxawee rek amatuñu lu ñu wax mais comme jox nañu kàddu gi maa ngi lay déglu. Pikinu démb laa lay laaj ak Pikinu tey loo ma ci mën a indil comme nataal li amul démb Pikine. dama ne Pikinu démb mooy euh, Papa Diop. Falaye Balde booy Niang mu mag Pape Fall Timbili Mbacke Ba euh, Mor Silla euh, Burxaan euh, Paala waaw Paala su ñun la bokk mais Paala su ñun ñooy magam mais Pikine démb mooy Mor Silla Samba Diagne Grand Yanki ñooñu ñooñu ñoo daan topp ma jóob yal na ko yàlla yërëm ñooñu ñooñu ñoo daan ñoo daan ñun ñu topp seen ginnaaw ñoom ñu ay Aldemba Seye coiffé nekk benn ménager moo amoon Pikine mooy Aldemba Seye mooy engagé yi ñëpp waaw moo dugal tamit Ousmane Seye Ousmane Seye dugal Babou waaw suñu kanam waaw. dama la dégg kere ci benn interview nga wax ci Pikine sa nekki noonu ak Falaye Balde ak Pape Diop Boston ba ma dégg sax nga ne. Jules Baldé mbapat bi mu njëkk a jël cité police kere yaa ko yóbbu mu dem bëree ji. waaw waaw loolu am na comme ñoom li ñuy tete ñun loolu la ñuy tete suñu rek Jules Baldé Ndiaga Diop Baboy ñoo ñëpp ñun ñoo leen tete parce que ñoo ñun mag ñee ñu jàngal ñu jàngal xale yi waaw waaw mag ñee ñu jàngal ñu jàngal xale yi. comme la ndongo loo waxoon. waaw waaw parce que bu Pape Diop toogee Boston toog mais euh, kii toog Falaye Baldé mais Papa Diop moo ñu daan jàngal bëre taxawal nii defal nii defal ne keroog ba may daan Aliou Diouf Aliou Diouf di mbapat euh, xaar yàlla docteur Faye yàlla ko yàlla yërëm ñëw ne ma da ngay Aliou Diouf da ngay bëri moom parce que gis nañ maa nga indi ko jour boobu si kàttanu yàlla ak yonti bi la ma daane Aliou Diouf moom mii Papa Diop moo ma ko jox waaw ne ma ah, ma ne ko Aliou Diouf day dóor coup de mu ne ma boo ko dóoree coup de filet da nga koy dóor épaule mu retourné ñëw. keroog ñu koy entraînement ak moom di mu koy traverse bu bàyyi maak man sori ñuy travailler loolu ba ba sept jot moom mu ñibbi bàyyi ñu fa ñun ñoo naan duy ndox ñoom ñu sangu bu ñu sangoo ñun bàyyi ñu fa ñu nekk fa di kalañ-kalañ si guddi gi yàlla feeñu loolu feeñu moom ma dem Alioune Diouf dëkk ma Alioune Diouf bi ma dëkkee ne du ma tus ma bëreeg moom mu dóor ma coup de filet ma dóor ko moom parce nit ki boo ñaa ak Papa Diop bu ñu daan wax ak ñun bu ñu waxee def lii ngeen di def ñun loolu la ñuy def bu ñu daanee moom la ñuy def bu ñu daanoo moom la ñuy def waaw ndax gëm leen parce que xam nañ ne Sénégal ñoo fi dàq bëre man loolu dama koy wax tout le temps. Pape Diop moo dàq bëri Sénégal. Sénégal boo ko laajee keneen ku nekk moo wax la ko xëy na ñenn ñu am nañ secret la mais technique gu bëri ah loolu wax naa ko waxati ko teg xale bu bëri technique gu bëri waxuma la doole matul quatre-vingt-dix matuloon quatre-vingt-dix kilos. talent bëri cent kilos cent quelques kilos booy ñaa boo muy daal moom Ali ñaari kilo loolu quatre-vingt-dix kilos waaw loolu loolu yàlla dëgg la bëgg waaw mbër yëpp ko ëppoon ñoom mbër Pikine musul am mbër mu rëy waaw mbër mu rëy Pikine musu ko am mais chaque jour si kàttanu suñu borom bu bu ñu bëri yow xel lañu ñu bëri ak xalaat ak fit ñëw jaar la foo xam ne parce que am na action yoo xam boo amul fit doo ko def beneen bi ma lay laaj yow macha allah yàgg nga pikin yàlla na fan wi gën a gudd cër yi gën a wér di ko ñaanal bépp doomu ban combat Pikine moo la gën a marqué ci mbëru démb waaw papa papa Diop euh, euh, Samba Diaw bi mu demee bay laal suuf bañ ne at ko mu ne nii bay dem bay suuf ba bay dem bañ ne waaw mu dóor ko mu dóor ko continué tëf tourné ak moom. at bi mu ne tànk gisul ngem Pape Diop di joxe victoire daal di xool ngem Pape Diop daal di yëkkati loxo Pape Diop loolu bari yooyu man gisatuma ko sax waaw gisatuma ko gisatuma ko waaw. mais gis nañ ay xale pikin bokk na ci sa doom dinañ ko tudd parce que nit ñee koy faral di wax mën a bëreem boo doon comparé ak mbiru démb Pikine yi koo ko ciy jox. Euh, moom turandoom. booy ñaan sa doom waaw turandoo ji ko jàngal kii ko jàngal dalal ko waaw. yàgg yàgg booy ñaa ku dàq bëri. non xam nga lu tax ñu bëri xam nga lu tax bokkuñu bëri euh, bokk nañu bëri bokk nañu bëri man bu ma téyee sa ngemb du seen mbokk nañu wax dañuy euh, ñoom Pape Diop dañuy wax jël leen bitéelu ñu dem loo ponkal ponkal bu mu ne taral sa rek pare nga waaw. parce que yaa ko dàq bëri. parce que loolu doon la woon doon la woon ci ñoom ñaar booy ñaa ak dégol ku dàq bëri. Euh, Dégol la dàq bëre booy Niang. lu tax mu dàq ko bëre. dafa mën a bëre bëre Dégol ak bëre Boy Niang du benn ndax responsabilité yi booy Niang yi Dégol ñemee ci làmb booy Niang du ko def xalaatu ko sax waaw booy Niang bu demul sax bay niroog moom waaw Boy Niang dafa jël turandoom ci mën a bëre ci fit ak ci lépp waaye bu dee dàq bëre bàyyi bee ko dàq bëre. dama seetlu leen tamit Pikine saa ñu ne Pikine ci làmb dañ naan Fallaye Balde ne Pape joom ne Dégol. yéen ñett seen tur yooyu ak ñeneen ñoo xam ne ñu ngi leen di dégg waaye yéen ñett da ngeen a bokk ñett ñoo xam ne seen tur dafa gën a sax ci Pikine loolu lu ko indi waaw xam nga Falaye Baldé daf daf nu daf noo fekk Pikine nuy ay xale ndax Falaye loon Pikine dafa noo fekk nag Pikine nuy ay xale mu indi fa làmb waaw bi mu fa indee làmb nag eh, ñoom ma mag leen maa jëkk ca Falaye te xam nga mag fu mu a dem rakk yi topp ko ñoom it ñu topp ma moo tax ñuy tudd Falaye di ma tudd di leen tudd waaw la demee tey lambi lambi tey ji ak mbëri démb yi boog laa lay laaj yéen seen génération ak xale yi nga gis ñuy bëri sama doon wax ci xam-xam bu bëri ñan ñoo ko ëppale. waa xam nga comme ni ñu mel ni rek tey euh, fukki nit rang te fukki nit yooyu nga bëgg na dénk ko juróom juróomi ak juróomi ñan a dàq euh, ñan a dàqale waaye boo dee seet ba ci biir alors euh, l'expérience fait la différence moom la ñu wax te it la force élimine la technique mais de fois la technique élimine la force. xale yi nag léegi ci la kàttan yi ëpp ci la xaalis ëpp ba tax na euh, boo dee seet au fond au fond da ngay tudd xale yi waaye ba tey mag ñi duñu benn ak ñoom déedéet. Boston bi am na ñu ñu koy laaj xam naa moo ñu mag mais lan mooy Boston Pape Diop ji ñu teg ci Boston. waaw Boston ji xam naa ne li koy indi kooku sa lu ko loolu waxtaan wu yaatu lay doon. kook moom <laughs> nañu bàyyi ba. Boston Jerry. waaw Boston Jerry moom da wax neen waxtaan la loolu beneen waxtaan la. waaye am ngeen combat bu mag mag ñëw démb Pikine gis Eumeu seen def karawaan ànd ak ay rakkam Boy Niang Ama Baldé ñoom Sokh Mame la ngeen war a bëre ak Bombardier yéen ak Bombardier Bombardier gis ngeen ko xam ngeen ko de. waaw xam nga làmb làmb la tudd da ngay làmbatu rek toujours nga gis ko daan ko la man Euh, toujours nga gis ku daan nit ku la ëpp technique ndax Bombardier defe naa ni daanu na fi ay jël Baboy mi ko mujjee daan ama ko kopp kon yaakaar naa ni euh, bu dee affaire force fa lañ koy xoole ñu ci bari dañuy juum technique mooy bari ak Bombardier te ama seen yàlla dénk na ko technique ndax ñun ñi muy àndal doon ñu judd suñu kanam xam nañu lu mu man ak lu mu manul moo tax tey li wóor ta leer mooy bu ñu doon bëree cent fois boo ma dee laaj kuy daan dama naan Eumeu seen mooy daan. lu tax loolu. waaw li tax loolu c'est parce que ca yar bala ak ànd ba ak bëre ba ak it pikinité ga est-ce que tamit da ngaa dëkk Pikine farak Eumeu Sène rek. waaw courage ci jëmale nag sa kanamu dëll nag yooyu itam mënu maa wax ne Eumeu Sène lii wala Eumeu Sène lu dul Eumeu Sène ay daan. Bombardier amul lu ngeen di moytu ci moom. déet xalaatuma ko nag bu ma yi dégg la amuñu lu ñuy moytu ci moom. moytu ngeen xeexam moytu ngeen force am. xam nga lu ci nekk man lépp yàllaa ko man waaye lépp maa ko man moom amul jeexal téere yi yàlla rek ko def. moom it dugg na Pikine duggate Pikine de defe naa Benoum Balla Beye numéro 2 moo ko fa daan. Benoum Balla Beye numéro 2 moo ko fa daan. ak Tyson numéro 2 bu njëkk ba doon ànd ak Tyson waaw kooku daan na kooku njëkk a daan Pikine. kon waaw moo tax ma ne moo tax ma ma wax la li ma kon jaag kooku daan na ko fa. mu daan fa Balla Beye revanche daan fa Tyson ñaari yoon. ah mu mel nii bëgg na faa miin de. waa bëgg na faa miin miin waaye moom it miin na fa de bëgg na faa miin waaye moom it miin na fa ndax dèjà lim nga ñaari defet yi mu fa am. ak ñetti ndam. ak ñetti ndam làmba ngi noonu <laughs> loolu mooy làmb nag di itam ah dañuy ñaan yàlla kay mu yem fa te ki muy bëreel nga xam ne nooy noo koy ngemb di ko yóbbu yàlla may ko ndam. keroog mën nañ laa xaar nga wàcc ak tërëneeg ak blouson ci loolu moom yaakaar na am naa ci yaakaar nag am naa ci yaakaar ne bu bés baa dégg ma gis ak training blouson wàcc ci géew bi mag Dégol. Père Dégol yow bu baax waaw ah, ñu ngi si liggéey baax parce que man la Papa Diop yebal ñoom ñu ñëw si man waxtaan ak man waa Kër Eumeu seen demaat si Papa Diop waxtaan ak moom Pikine gépp war see jàpp mu ànd ak ay rakam booy ñaa amaa Baldé Sokh euh, euh, ñoom bari Batista ñoom Jadli Mame Balla ñoom ñëpp la àndal démb pour wane ni Pikine nañ jóg jàppale ko. Pikine di boo euh, Eumeu Sène amul dara lu Pikine parce que papam papaay Eumeu Sène di Assane moom mii Papa Diop laa àndal ak Boy ñun ñii lii papaay Eumeu Sène bu Papa Diop masaan dem da koy entraîné xale yu baar ak ak musculation mu yor ñu di ñuy entraîné baar ak musculation kon ñun dañoo war a fay bor bi muy si muy muy si Ndiaga Diop muy si muy si muy muy si Eumeu Sène muy si Boy dafa am ay borante ay ay ama ak Ama Baldé dañoo am ay bor yoo xam ne dañ ko war a fay parce que wax naa leen man damay bëri Kébémer Papa Baldé di bëri Dakar Falaye Baldé bàyyi fi combat boobu ànd ak man Kébémer waaw. bàyyi fi doomam jël la yóbbu la Kébémer nga. waaw te loolu loolu ñoom yàgg nañ ko yàgg nañ koy def waaw ñun bu ñu daan bëree si biir néeg sax. si biir néeg Pape Diop dana nga mbër bi nii mooy bëree si biir néeg bi mu ne nii nga ko war a daane. am na lu gàtt lu ma leen di laaj. seen digganteeg Fass coow li ma ci daan dégg Fass Pikine ñu ne la. est-ce que xam nga euh, Fass Pikine lañ daan entraîné seen yow. déedéet loolu moom xaw ma ko. Pikine Fass Pikine laa entraîné seen. ñan ci Fass Mbaye Gueye Sadio Camara ñoom ñëpp fii Pikine lañ la. kon su ma la déggee daa mel ni dañ fa jàngee bëri. waaw fa lañ daan entraîné Mbaye Gueye fa laa daan gëmboo Mbaye Gueye syndicat laa daan gëmboo waaw. Abdou Ndiaye Kolos. Abdou Ndiaye Kolos bàyyi Sadio Ndiaye mii simb booba temps moom benn benn écrit benn benn salle rek fa amoon benn écrit te Abdou jaay moom moo ko yoroon nun ñii ñëpp fa la ñu nekkoon di fa daje it waa Fass yi moo tax it Fass dina xam na ñu naqare woon a daan Fass mënuñu woon a daan te ba léegi it mënuñu woon a daan. mais loolu dinañ ci ñëw kër ga dañuy ñëw Pikine fekk leen yéen ngeen toog ñu waxtaan a yéen ci diggante Fass ak Pikine. Père de Gaulle moom nee na démb yaa ci dàqu na bëre daf koo fekkee. ndax xam nga man doon naa ñeenti yoon champion d'Afrique te champion d'Afrique dégg na tëggaale wu ma la xam nga du ma méngale champion d'Afrique ak roi des arènes ndax roi des arènes fii du Sénégal gi la ak suñu stade yi mais champion d'Afrique Afrique la nga génne ci ñeenti médaille door kon yaakaar naa ni bu la nee mën na mën na maa bëre loolu kenn waru ko naatamle te it mbër yi fi mënoon yëpp maa dajeeg ñoom maa dajeeg mbéy gi dajeeg Robert dajeeg Double Less Ibou Senghor Boy Bambara Samba Diaw Souleymane Diaw Madiaw Ndiaye Boy Remarque Mor ma Mayoro fal xam nga sama continuer di lim nii kon day defe naa ni li lay dégool wax war la <laughs> da ngeen war dañuy ñëw